dama ah. gunge ko ba ci buntu giri bi. waaw hmm. ah, mooy bi muy wax loolu mag mais Macky Sall moom Macky Sall fi nekkoon. <laughs> waaw léegi nag Ousmane Sonko ñëw. këpp yalwaanu giri bi nag. mais mais Ousmane <laughs> mais Ousmane Sonko. c'est normal nag mais mais Ousmane Sonko mooy président maintenant. <laughs> Euh, soo euh, soo soo ma bàyyi ma ma ma jeexal foofu. maanaam euh, ndax li muy def nii dina ci am ay retombées politique. Mm-hmm. maanaam notoriété bi nga xamante ne tey moom la peut-être un certain Ousmane Sonko am ba élection ba mu jotee mu am ci li mu am. loolu ndax Bougane dina ko am. je ne hmm. pense pas parce que comme je l'ai dit euh, ñenn ci askan wi à force d'entendre Bougane Bougane. Bougane Bougane Bougane ils vont se dire mais Bougane mi soof na. Hmm. mais Bougane mi xanaa amul leneen lu mu def wala moom am amul leneen lu mu liggéey. Sénégalais ak moo gaaw jéppi ni day jéppi c'est ce que je disais tantôt parce que loolu gis nañ ko fi avec des gens te ba te ñoom bañ ko defee après dañoo dem ils ont rongé hmm. leen. est-ce que tu comprends. donc loolu a réussi te du gaaw amaat te te loolu yàlla moo ko ko jagleel. Mm-hmm. te soo xoolee Ousmane Sonko fi mu jaar mais Bougane su fa jaaroon peut-être su fa jaaroon peut-être dana am li mu am parce que Bougane il tout pour pour pour sa cela parce que Bougane amoon na télé Bougane am na koppar Bougane moo ëpp Ousmane Sonko xaalis fuuf. mën na ko ko may. Bougane moo ëppoon notoriété Ousmane Sonko foofu parce que jamono yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ngi woon dans l'anonymat nekk inspecteur des impôts mais Bougane am dama ne loolu rek mu daan def Sénégalais les Sénégalais avaient beaucoup de sympathie pour lui. Mm-hmm. maanaam son entrée en politique a beaucoup beaucoup beaucoup terni son image ci sympathie bi nga xam ne. une frange de la population sénégalaise amoon nañ ko ñoom ak buggal loo ko bañ bañ bañ da ngay jàpp ne dimbali na askanu Sénégal ci seen yenn jafe-jafe. Mhm. maanaam am na population yu bari yoo xamante ne tey. ils sont redevables à Bougane euh, na def lu bari daal donc loolu noonu bu le chef d'entreprise Bougane l'être humain beaucoup de Sénégalais l'apprécient mais Bougane l'acteur politique les mhm. parce que sa façon de faire de la politique dafa salté en fait ngi ñu baal ma rafetul rafetul en fait parce que da ngay xëy nekk ci dellu nit ki matin midi soir matin midi soir yow mais xanaa uude sax day day léegi su ñëwee ci ñëwee ñëwee ba yàgg mais su yàggee day day noppale day sonn mais Ousmane Sonko su réagiré vingt une heures yow vingt deux heures yaa ngi ñëw taxaw ne damay damay laaj. nga jël sa oto dugal ci taskatu xibaar di fekk leen ma fee. mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que Ousmane Sonko moom muy opposé ci Macky Sall Sonko da ko commencé en étant inspecteur des impôts. Mhm. il a risqué sa vie il a risqué la vie de sa famille. de parce que gagne-pain am. na nga xam ne ci la daan suturlu la ñàkk. te loolu nag Ousmane Sonko mën naa la may na ko lu bari nag parce que imagine si imagine toi si Ousmane Sonko n'a n'a pas été radié. Ousmane Sonko suñ ko rajal woon gouvernement bi suñ ko jëloon suñ su leen neexoon ñoom dañ koy jël muselé maanaam dañuy jël dugal ko ci poste boo xam ne day am droit de réserve par force mhm. xanaa peut-être mu bañ a nangu mu démissionné dans ce ko dàqee ci euh, ci impôt domaine <laughs> mais il avait un combat mhm. il avait un combat mooy man inspecteur des impôts et la dama doon liggéeyal nguur am naa lu bëri waa xam naa ko ci nguur may dénoncé ñoom seen pratique ñu dàq ma Ousmane Sonko a commencé à bi gën a nopp maanaam c' était la pire erreur bi nga ko am argument. Mm-hmm. avec ces quelques personnes ñi nga xamante ne amoon na la ñu commencé liggéey à travers euh, internet parce que Ousmane Sonko amul woon ay nit. Mm-hmm. amul woon ay nit. à travers les réseaux sociaux mu jaar ci di def ay discours mais ba mu demee ba toog assemblée. mu ne tey ngeen dee. ci la mhm. commencé wax ay fi xam-xam. waay ñu leen indil ay ay chiffres yu amul fenn. même man mi nga xamante ne je m'y connais absolument rien en économie je me je me suis commencé à à m'intéresser à cela. Mhm. est-ce que xam nga ni man bi may soog a door def journalisme j'étais journaliste sportif. waaw nuru nga maanaam lu dul sport xawuma ko woon. Mhm. lu dul sport xawuma ko woon mais xam nga kañ laa commencé def politique Marieta en 2019 bi élection présidentielle jotee parce que jamono jooju c'était Khalifa Sall qui était au top. top waaw Khalifa Sall ci opposants yi Khalifa Sall était au top Ndakaaru. borom Ndakaaru te jàppoo nañ ni su demee élection moo Karim Wade il pouvait quand même jël Macky Sall moxoñee ko. Mhm. mais avec l'avènement de Ousmane Sonko. qui a qui a parlé d'un changement systémique. Mm -hmm. qui a parler de système. qui a commencé à faire confiance à la jeunesse. jox ni wax ni jeunesse yéen yéen réew. yéen réew politique mais les discours ont commencé à changer. man nga xamante ne je me suis commencé à m'intéresser à la politique. di terrain. di accompagner homme politique yi même su fekkee ne en 2017 ci élection législative bi defoon naa ko. parce que mhm. j' étais obligé en tant que journaliste boo xamante day so a dugg. mais sama première grande campagne c' était en 2019 ci laa def campagne bu yaatu ànd ak ay acteurs politiques di déglu seen message. mais ci la politique saree ba l' événement de deux mille <laughs> deux mille vingt et un ça a été te a été donc jamono jooj ak jamono ji bokkul. li nga xam ne Ousmane Sonko réussiroon na ko ci mission am Bougane du am le zéro virgule cinq cinq cinq cinq cinq cinq cinq pour cent. non Bougane Bougane. tey moo dem yore ji entreprise. Bougane koo xamante ne am non koo xamante ne mënu am parrainage. dañu parrainage waaw parrainage sonal na ko nag. lii yoon moom occasion la woon nañ ko bàyyi mu dem. lii doon occasion la woon. mais Bougane mënul am parrainage pour mu kenn waxul ne en fait kenn man je ne dis comme je le dis chaque fois rek man Bougane je rien contre lui je le dis et je le répète je rien contre te aussi je n'ai rien contre je rien contre son travail mais dama ne su bëggee am dara ci politique ngir yàlla war a soli na xoolaat façon bi muy defee politique na bàyyi def na bàyyi attaque personnelle yi muy def te concentré ko moom su bëggee am li mu bëgg na jël ay experts yi nga xam ne ñoo koy xelal ci wàllum communication déjà politique mu dem jàng science politique moom su fekkee bëgg na am dara ci politique bi. tu sais pourquoi. oui Bougane il ne fait jamais un débat contradictoire Bougane man ñaari émission laa ko seetaan mu def débat te ñaar yëpp ci télévision Futurs Médias la woon beneen bi jàkkaarloo beneen bi ak. Pape Ngagne Pape te Pape Ngagne soo ko xamee moom face to face lay def. te am na loo xam ne en tant que présentateur du ko mën. Mhm. xëy na dina xaw a sañax sañaxal tuuti xaw la yëngal. mais quand même du dem ba fenn fii mais tey tu tu nekk da ngay jàkkaarloo ak ay opposants mais je ma chère dañ fois. Cheikh Khadim Bamba Fall mi mu toogee avec. waaw cette <laughs> femme de l'APR là. soxna Ndiallo. Ouais. mais da koo à la limite da koo. ridiculiser est-ce que tu la soo. nekkee acteur politique sooy wax ci yenn débat yi mais foog nga am maîtrise. loo xamante ne amoo ci xam-xam amoo ci euh, xalaat gu xóot mais limite toi. au fait. mooy jàmm ji de. mu limite toi au fait donc moom su nekkee loolu noonu bëgg na ko réussir parce que ci la dernière fois ci projection bi nga xam ne def nañu ko ci film Bois Pastef mais tu as entendu des témoignages. maanaam ni Ousmane Sonko defee ba ba réussir loolu. Mm-hmm. mais parce qu'il y avait tout tout un arsenal derrière. il y avait des experts yi nga xamante ne ku ci nekk ak. domaine ba nga ba nga ba nga nekk yaa doon xelal Ousmane Sonko ci wàllum santé l' actuel ministre de la santé hmm. moom moo ko géré woon ci wàllum économie et autres maanaam secteur boo dugg hmm. ñoom ñoo amoon nañ ay nit ñoo xamante ne ñoo ngi ci doon def gëstu yaatu yoo xamante ne day am ay chiffres ak ay euh, ni ñu koy sax ay ay ay ay ay gëstu yu am solo yi nga xamante ne Ousmane Sonko su taxawee ci baar hémicycle même en sept minutes wala en cinq minutes de parole trois minutes de parole moom dina joxe révélation yoo xamante ne ministre ba fa teew dana taf gémmiñ ne ne mii kii fan la xamee. lii mais nit koy politique noonu ngay politiquer. Hmm. mais yow que c'est personne seule. mais tu ne absolument rien faire. su nekkee nag bëggaat am na loolu jàppal na ña koy defal loolu xamuñu dara na leen da na leen dàq parce que actuellement jural luñ ko dara lul ay ennui. man loolu laaj gis. te jàpp naa ne gis nga conférence de presse Ousmane Sonko boobu moom su bëggoon indi benn réplique bu baax. moom il devait attendre minimum vingt quatre heures. mu woo li nga mu ne xool leen ma fan laa mën a jaaree waa ji ba contredire ko tout en ayant raison. mais est-ce que boobu mi ngi dem ak xelam. ah mais ku demul xel di dem. ak xol ak xëtër mais ci musiba rek ngay daanu. et c'est ce qui <coughs> c'est ce qui <coughs> euh, ce qui arrive malheureusement ouais. on, on ne lui pas vraiment te man jàpp naa ni coowal Bougane mi vraiment c'est juste pour animer un peu les médias loolu nekkoon information mais liste yi ñu sax liste yi sax mujj wuñ ko publier lundi lañ wax waaw gis nga te lundi lañ koy publier loolu loolu moom moo nekkoon information bi dem mais Bougane a tout noyé te lañ la lañ fa jëlee way Euh, lañ lañ koy toppee. Euh, injure publique ak ak diffamation di attends euh, après deux chefs d'accusation yi tëb na de ñu ci bari xamul. Hmm. bien sûr trois chefs d'accusation la woon mais deux rek tëb na de deux yi tëb na de. ah bon bien sûr. actuellement division de fausse nouvelle kese lañ koy toppee de y' a plus d'injure publique y' a plus de kii nu ñu koy waxee sax. kii dañ kaa war a bàyyi mu dem élection ñu wulli ko mu dem. toog non xam nga élection moom dina ca dem. ah élection Bougane dana ca dem parce que mu nga ci liste te yow espérer que tamit en tant que Bougane acteur politique. départemental lay dem <laughs> non départemental lay dem. dañ ko war a bàyyi mu dem xam. ah non personnellement man bokk. Ah. man bokk li ma li ma li ma gëm mooy man su may xëccu leader. Mm-hmm. di wax ne je suis leader incontestable incontesté je suis acteur politique. Mm-hmm. man tey su may dem élection départementale lay dem pour des élections législatives départementale lay dem lan lay def liste nationale. baax na <coughs> li ma wax ni sa caaxaan même au sein de Pastef même au sein de Pastef xam naa ne bokkul ci sujet bi mais je le dis je vous dis au sein de Pastef tey man su ma nekkoon un leader politique. Mhm. Pastef ay alliés su ma nekkoon un leader politique gëm ne man j'ai une force politique dama naan. diw sànga man nag la waaw man bu ma kenn boole liste nationale yóbbu ma départemental ma woon ngay ne man je un homme politique boo xam ne j'assume mes positions loo xamante ne sama askan dana ma nangoo ku nekk ku nekk ku dëgg ku dëggu nga dëgg dëgg dëgg dëgg mais sooy xeex da ngay nangoo xeex ak sa askan te sa askan la nga xam ne moo koy firndeel mooy département bi nga bokk. au nga dem am fa représentativité. Mhm. ñu eel ba tey ci mbir moomu Pape Ibrahima